ki ñu seeti nag moom mooy tonton mag kan mooy wuyu si ki nga xam ne mooy Sindiély Sindiély ñaari at ñetti at kenn gisu ko senegal kenn dégg ko waaye li yëngal Sindiély mooy yëngal pale ba Sindiély ñëwaat na ci biir Sénégal le retour de Sindiély ñu seeti Sindiély bi lay dama géej ci dëkk bi namoon na Sénégal yépp ma sukkal waa Touba maa ngi leen di sukkal ma sukkal waa Tiwaawan waa Cambérène ak Popenguine ñépp ñaa ngi leen di nuyu dama ne sama papa ngi toj àdduna sama papa mu ngi jàpp ñaamuram waaye mu ngi toj àdduna da ngeen yaakaar ni sama papa chômeur la déedéet du chômeur de sama papa mu ngi anime ay conférence États-Unis ay Malaisie ay Indonésie ba ci Inde actuellement président yi nga xam ni dañu daanu ci nguur ku toog da ngay lijjanti loo xam ni moom ngay yor xam nga fan laa nekk actuellement di campagne pour sama papa nekk secrétaire général Nations Unies ni ko Boutros Boutros Ghali nekkee woon uh-huh. ak Kofi Annan sama papa lay campagnal pour mu nekk président Nations Unies te bu soobee yàlla yàggatul léegi mu nekk ko waaye li ma yëngel moo yëngel muy sema li ma yëngel moo yëngel ñëpp ñaar laa bëgg ngeen xam ko Karim ñoo bokk ndey ak bay ci kaso bi mu maanu dañu koy bàyyi duñu ko bàyyi loolu intéressé wul Karim ndax loo tàmm ba tamal ko ba tàmm ko ba ci yàggee tàmm ko waaye dama leen di laaj Karim Wade mi nga xam ne mooy sama mag ni mu noppi loolu lu koy fay Karim nu toog jàpp ñaamu xam moo koy fay ñii wax nañu ko bàyyi am na lu ñu bëgg dee waaye Karim dara fayi ko ñaar lay tontu li tax ma ñëw senegal démb ci guddi Marème Faye moo génn di defante ak sama yaay te mu maseek man li ma magee bariwul moom nag dafa ñëw au lieu mu defanteeg man muy defanteeg sama maman te ñun suñu yaay nañu am moo tax it duñu ko bàyyi mu set Marème ñaar laa lay xamal benn bi jigéen nga may jigéen waaye man lan moo muy fay ci xale bu ndaw liggéey ba pare kenn topp ma parce que laalu ma aleer lu réew mi ii def leen nank Marème comme que yow yaa wax ne tubaab buy tàccu ba jël loxoom def ko ci ndigam day fekk nga nekk tubaab ci ndey ak baay waaye ñépp xam nañ ne man Aïda Wade laa tudd eh, sama turandoo nekkoon fii ci ñaari tali ma doon fak oui sama ma do oui doy na ah, woo tax ma ne ko guney ñaari tali ak guney point 1 e. ba pare dëkk Kébémer doon vacances yi ñaari tali koo ñu xeex ak koo ñu ñaari tali koo ñu ñambi koo ñu mbéy njay bi koo ñu salam jello comme que yow yaa mën a defanteeg sama yaay ak suma ku ci tollu ti wax ko def way man lan moo fay dama marim jigéen nga may jigéen loo ci bañul bañu ma ko ci dama ne xuloo tubaab day fekk nga nekk tubaab ci ndey ak baay waaye xuloo métis ngay wax ndax man dama rax kon li koy fay du yomb Marème lu ma bëgg nga xam ko mooy waxal sa wax te bàyyi waxu suma yaay ndax suma yaay du sa morom yow man maay sa morom foofu nga dëkk xam naa ko miin naa ko def nañ fa fukki at ak ñaar kon lu ma layee foofu et sama yaay sax dafa am sutura xoolee Marème Faye bu génne te dal yi muy sol wóor na yàlla duma texal ni dara lu def samay dal la sol samay ndokket lay sol ndax sama papa dafa ne ma lépp lu def si pale bi bu leen ko jël ma bàyyi ko ko muy def lu ko neex te nag nañ waxante dëgg man ma ba ñu may joxoñ waaye tamit xafetuma ba ñu may joxoñ dama ni Marème Faye loo ci bañul bañu ma ko ci foo woo ma fekk si la sëkkate sëkkate baax a may fay laaj naa leen ko lii fay sama papa di toog télé bi Karim di toog kaso bi

papa ngi toj adduna man ma ñax a ñëw toj Sénégal Maxim ku ne ñaari tali ana ñu ana ku ne Grand Dakar bu ñuy simba gaynde ak Sadio maa ngi woon ci langue bi moo taxi ma ne xam nga lan dañuy def moom comme que dafa télé ma wan ko ne man Sindiély Wade duma tubaab ci ndey ci baay dama rax olof yóbbu leen ma Kaolack foo leen ma yóbbu ma fekk leen fa lu koy fay